yàq ngir la neex Touba loolu lañ lay sant jërëjëf gars yi ba beneen yoon waxuma ne damay def suba kii nee na un président avec trois femmes c'est grave loolu duñ ko nangu ana jamanka lan lañ koy am ku ana jamanka jamaa noir ku ko am lan ngay bëggati looy doyati lan ngay doyati ana jamanka ko am lan ngay doyatee jigéen li ñu soxla si jigéen yëpp mu ngi ci ana jamanka rafet na dégg na tubaab diction ne neex na jonge na ah Sonko boo dof dof loo ba utal fi ñaareel eh, Anna Diamanka ñetteel Anna Diamanka génn ah bu génnee attention de man monsieur Cheikh ah <laughs> ñëpp xam nañ damaa nopp Anna Diamanka ah attention de voilà kii Cheikh continue à faire de live non dootuma def live balaa may def live day day tax lu am lu am solo tax ma def live mais man amatuma lu may def live li ma waroon wax yëpp wax naa ko amatuma man man man bàyyi woon naa live moo Morgun moo tax ma commencé waat laay ba mu ko ba mu solee ba mu génnee Sonko kilot di wax Sonko moo def lii Sonko moo def laa commencé waat ne ah kon il faut ma commencé waat live mais instant yi amatuma lu may def live pare naa sama mission jeex na lenn daal lay xaar Sonko bu génnee dinaa def live ah bu ñu reyee Thierno Alassane Sall dinaa def live euh, Macky Sall bu daxaatee élection yi mën naa ma def live mais man gisutuma lu may def live voilà gis léegi daal damay toog rek di observer <laughs> temps yi moom dama am sama jàmm laa nekk sama jàmm laa nekk damay toog rek di ah lii yëpp waxoon naa ko may mel du Ndour Faye ne woon naa dañ fi jéem a rey nit may mel ni Ndour Faye ngoog te te nañ dem rek waa APR dañoo bëri pexe de nguur kenn du ko joxe noonu pétrole 4-4 yi ah, soo ko nag li mu ko wax ci Anna Diamanka lu leer laa ko Anna kenn du ko utal ñetteel Anna dégg nga li kii wax Kumba Gaw Gaw la kuñ fi dóor ku fi sa jëkkër dóor na nga dem fase loolu moom du wax ju rafet parce que moom amul jëkkër bëgg tas say sayu jàmbur waaye Anna Diamanka bu la Sonko utee ñetteel ah man du ma wax nga fase de du ma wax nga bàyyi Sonko de waaye Sonko boo dof-dof loo ba Anna rëcc la candidat yaa ngi fi de man de lim Anna moom dama kaa nopp man moom amul lu ma ciy nëbb waaye nag ñaareel patriote moom bu soobee yàlla suma lu ma koy tere ut fii laa ko waxee nag kii nee na monsieur Cheikh Tifanou Manké mais gars yi 10 jours rek laa toog def ma live bu amaatee da leen lu xew ma ñëwaat kon maa ngi coupé ah. merci laaj leen partagé leen ah, ba beneen yoon yàlla na Diomaye génn ci jàmm ak salaam yàlla na Sonko génn ci jàmm ak salaam mais bu ñu génnul suñu yoon nekku ci Macky bu la neexee nga rey Sonko Sonko moom mi ngi yollale dinaan sama yoppale ngeen bëgg ko leen yóbbaale parrainage du ma yokkale ci loolu la ne. yéen a ci jàmm soo loolu leen wax maa ngi ci jàmm boo nekkul ci jàmm c'est votre affaire boo leen nekkul ci jàmm I don't care pros maa ngi ci jàmm maa ngi yolleel le dinaan sama yóbbaale ngeen bëgg ku leen yóbbaale parrainage tuma yokkole maa ngi ci jàmm maa ngi Cap Manuel la vie est belle ànd ak sama kal nu mu mënti mel maa ngi ci jàmm voilà gaay yi boobu laa may continue non dootuma def live dootuma arrêté ñaan bu bu amee événement ma def live gars yi maa ngi dem ba beneen yoon merci nuyu leen ma Nefertiti nuyu leen ma faatu Ndiaye xam naa ne bu ñu gisee sama live bi di dinañu waaru ba beneen merci Cheikh Bara watawat tu es mon idole ñoo bokk HLM bu ma ñëwee Sénégal dinaa la seet si waaye nag attention merci bye